salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuy di leen ziar Leewtoo ak koor gi tey nag ñu ngi dugg duggati ci beneen ruq rek comme ni ngeen ko xamee ak ruq yi ak koor gi ñu nag yéen la xeex bi du jeex tey Talla Ndiaye fi ñu dugg fan la bu la neexee nga ne Pointe ah du noonu la deme restaurant La Marée dañuy dugg ci biir fekk fi benn champion fas yéene waxtaan ak moom ci Leewtoo TV. looy looy def fii yow. laa Babacar lu wànq di dox noonu. man mii ko yow laa koy laaj. lu wax lu wànq di dox noonu xanaa bëgg fu mu serloo donc. kese fii nag am na ay. serlukaay la lu yës ngir naan. fii ba Tambacounda. am na noppalukaay. fii ci Almadi tamit am na noppalukaay. la ma mama aji bëgg ma. ma dem kon Lamine ya aji mama aji maa ngi lay bëggee. ci loone mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla naka laa maare ni fii ba ngorit am na noppalukaay waaw fii moom am na noppalukaay ak leneen sax ak leneen waaw lekk ba suur tëdd nelaw ah, ah, kon laa maare gi kër waroon nañ fee a ñëw taala mu fii moom fii la fii la yi tànge moom sa doom tey mel ni moo ñu fi yow muy booy bawal fii këram la moom fii moom këram la moom tey moom lu ngeen dawul rek du ma daw incha allah kon daal tey moom ñun ñooy delloo amas ba yow doo delloo non tey moom du ma delloo moom mbokk yi ñu suivre ci Lutte TV la ñuy wax tey Leewtoo TV 100 pour cent lamb xam nga ñaari site yooyu nag ñoo fiy def lamb 100 pour cent ci réew mi ñoo fi toogaat tey toog ak champion bu mag booy bawal Bukar tey mu toog lamit na ci caméra bi <laughs> Bukar Kor Mama borom siin maa ngi lay bëggee Bukar. Babacar maa ngi lay fay di nuyu mbokku Sénégal rawatina mbokku internetu Lutte TV ak Leewtoo TV yëpp di leen ziar rek ñu leen ko waxee rek ndogu mbër la ak kóoru mbër rek Leewtoo TV seet si benn ko rek. ma dalal ko ah. kon sama rakk ji moo wax loolu Boucar Boy Baol maa ngi lay nuyu di la waaw Babacar maa ngi lay fay asalaamaaleykum waa Lutte TV ak waa Leewtoo TV ginnaaw ma sant yàlla julli si yoneen bi di sant sama ñaari waajur di sant sama mama aji bugguma fii Pointe des Almadies la Maré maa ngi koy santaat bu baax a baax ndax parce que moom la waaw ndax moom côté bu ne daf ma fay jàppale côté bu ne heure bu ma ko fëggee billaahi di si def xaalisam di si def lu neem xam nga maa ngi koy santaat bu baax di sant. Euh, ci koor gi. yaa ngi woor. waaw maa ngi woor. ñaata fan la ñu am ci koor gi. tey am nañ 22. ñaar fukki fan ak ñaar. waaw ñaar fukki fan ak ñaar. Mhm. waaw. ci biir weeru koor lu ko ak bu koor jeexee. ak bu koor jeexee. non ñëpp war a woor ndax lu yàlla santaane ak liñ euh, comme ay bëre yi fii rek la yem àdduna te xam nga soriwul quoi. moo tax li yàlla santaane koo ak julli loolu devoir la ci doomu aadama dañ ko war a def waaw jullit bu nee da ko war a def comprendre li si des nag xaba ñu bàyyi ko si loxo yàlla eh, noonu la demee. jàngal xuraan. waa jàng naa alxuraan bi jeexal naa ko xam nga ma jóge fa dugg français dem ba CM2 xam nga rek taaw taaw moom yaa ma gën a xam. day laaj day waa teel a bàyyi jàng. Boucar loo ko bëgg a laaj. waaw li ñu ko bëgg a laaj rek mooy. booy Bawol ni mu sooboo ci làmb sax ban at nga dugg si làmb ban at nga lekk xaalisu làmb ba xam ne yow mbër laa war a doon. waaw man ay 2006 bi ma njëkkee Mbapat année bi ma njëkkee Mbapatee laa jël ay drapeau yu bëri mooy ay poussière di dem ay wakaam di fa jël di dem ay ci àll bi ay coom bi ay mbeelo ngi ay gànjaay di bëri ji fu ne di dem ay ngaay mexe di fa bëri ji année bi ma njëkk a duggee ci Mbapat mooy ay 2006 2007 si laa jël ay drapeau te doon lu ndaw nag. matuma woon sax 60 kilos waa di jël ay làmb noonu la demee. léegi Bougar laaj na loolu man li ma lay laaj lutte avec frappe kañ nga ko njëkk a bëri. lutte avec frappe maa ngi bëree sama premier combat 2010. Kool bu Zapp. ku daanoon. man maa ko daan sama premier combat. arène ñaata combat nga ci am. am naa 18 combats. ñaata victoire. 15 victoire 3 défaites. défaites yi bu ci gën a naqari ci yow boo ci farle ko mu metti la lool. défaites yëpp naqari ndax xaba nga euh, nga am combat fara si xaalis bu bëri. xam nga ànd say mbokk ñëpp ñëw te lay nga ñëw am defet daf lay naqari wax dëgg yàlla mënumaa jooy defet nag mais nag daf may metti sama xol waaye yooyu yëpp a metti defet boo am daf lay metti yaa ngi fàttaliku de combat ak Diène Boucar combat ak Diène Kairé ndeysaan dafa ñëwoon nit ñi joxoon ko favori sax nga gis combat bi ñëw ni mu demee mais man si combat bi may ñëw sax digganteem ak ama neex parce que da nga ñëw sumee ko ñu bëri ne kii entraîné wul loolu lu ko waral poids boobu surpoids boobu nga defoon waa sama combat bi passé jël naa poids nag ndax parce que maa ngi doon peser ay cent cent treize kilos xam nga loolu dafa ëpp si sama si sama taille quoi lan wax experts yi ñoo ko wax quoi mais damay euh, xam ne làmb la mais combat boobu li ma si daj dama see daj ay coono. billaahi ñàkk ci xaalis bu bëri daj si lu ne maak euh, sama gars yi mooy sama staff bi dañ see daj lu ne daal ak sama xam naa moom est-ce que mbër dina jël combat du entraîner. man loolu laa njëkk a xama d'accord ma loolu mu la fayee xaalis fay kee xaalis da nga war a waaw da war a entraîner rey sa bopp. léegi Boucar man da ba tey combat ba Boucar tudd dama siy des parce que Boucar man bisu dama seetlu combat oo xam ne dafa gaaw et puis tamit mu mel ni da nga xeeboon euh, ki nga xam ne nii mooy ama neex wala nga umpule ko lu waral gaaw yeeg lu taxoon nga xeeb ko. waaw mosuma bëree combat bu mel noon xeexuma bëreewuma defuma dara daanu xaw ma yàlla Ah, non xam nga yàlla buñ fa yàlla moom ñun ñëpp moo ñu bind mooy dogal mais ci côté bëri bi la wax quoi xaj na nag jël naa fi mbëkk boo xam ne bi ma yeewoo sama fii dafa neew yi maa mbëkk wax dëgg yàlla xam nga am na loo xam ne boo koy wax da naan day salteel defetu jàmbur mais barki Serigne Touba ak sama combat bi di jub dafa maa mbëkk fii fi may reculer nag pour amaat sama bopp xam nga rek ma dagg mooy loolu mu fekk ma fa rek yeggali combat bi yem fa noonu la demee waa ñu dem si leneen nga jóge fa léegi jëlaat nga combat fi mu nekk nii parce que yow ak ki nga xam ne nii moom mooy Marley la ñu wax yéen ñaar ngeen bokk ku leen daan muy Diène Kaïré ba pare yéen ñaar ku ci ne jóge ci defet Boucar loolu yaakaar naa est-ce que nar naa yomb ci moom wala ci ñoom ñaar. waaw combat bi daal combat bu neex la ndax moom daa am fu mu jógee am fu mu bëgg dem man itam ma am fu ma jógee am fu ma bëgg dem moom yabul ay supporters am man itam yabuma samay supporters yabuma itam ñi may jàppale. yabu ma itam waa njaan fi ma juddoo yabu ma leen combat bi li si war lépp dinaa ko def yàlla nag mooy maye ndam mais wax dëgg yàlla liggéey nañ loo xam ne gëm nañ ne dinañ am ndam si combat bi waaw ànd nañ ak suñuy mbokk ñëpp waaw te ñu ngi liggéey bu baax a baax ñu ngi ànd ak suñuy coach ku si mel ni père Ibou Diop ku si mel ni sama nijaay père Zallo ñoom Zal Thiaw ñoom isaa fay ñoo ñëpp maa ngi ànd ñoom foofu mu ñëw noonu sax si Zallo bi démb sax journal bi relaté na ko ne mu ne booy Baol Zallo la recruté lan nga gis si Zallo ba tax tey nga wóolu ko jox ko sa bopp pour mu entraîner la ci combat bi. waaw dama xam ne dafa am xam-xam sa père Zallo monument la monument la si làmb nun Baol Baol yëpp ñoo ko war a jox loxo comprendre comme ni ko Tapha Tine di defee ak comme ni ma koy defee ndax Tapha Tine bu amee combat bu bi woo na ko mu jàppale ko bu baax man sama combat bi woo naa ko bu baax dem rek ñoo liggéey lu metti incha allah tey rek xam naa bu émission bi jeexee incha allah xam naa dina am lu liggéeyaan man maak moom ak Père Ibou Diop ñooy liggéey lu métti ak booy yi. Bougar li nga ko laaj am na solo damay relancer waat ci bëri ci question lan nga manquile yow loo manquile ba tax tey nga dem jëli Zallo ngir mu fas la ko yéene yokkal dañu bëgg nga wax ñu li nga manquile ba woowi ko. waa li ma manquile. mbër ba noo matal lépp. ndax bi ñëwee nee na ma wax dëgg yàlla booy am ngay qualité bu baax. man nga bëre ñime nga am nga doole mais xam naa ne buñ teeloon a liggéey yaa ngi ci kaw waaw loolu la ma wax ba pare nag am na faa yu bari xool gis na ko si man ma ngi koy corriger si man loolu laa ko doon doyee te ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. yan faay. non du ma ko wax fii. bu combat bi paasee. dinañ gën a waxtaanaat ma wax leen faay yi. incha incha allah. Zallo yaa ko wax ku ko xam xam ne bi muy bëree moom ay bëreem Bougar day def ay déplacement maanaam ay déplacement latéraux dina déplacé wu buusee ut xeex mënuloo daawul xeex mais mbër su koo duma te daan na song te bu la songaan te ba rëyu kon est ce que loolu booy parce que yow gisuñu ngay faral di def façon bëri yooyu est ce que loolu Zallo doon def bu ko bëggee def ci yow est ce que dina yomb. lu ko raw sax day nekk si man incha allah instant ndax man moom yaakaar naa euh, boo may jàngal da may corriger lu ndaw rek ndax bëre li ma si man wax dëgg yàlla bëri na mais dañ naan njàng la rek comme booy jàng jàng arxuraan ak euh, français mënoo mënoo jeexal téere yi chaque année am loo war a jàng noonu la demee waaw daf may corriger di ma jàngalaat leneen waaw man noonu la demee daal. waaw noonu la demee nga jub bés nag yoo ak Marley ngeen war a bëri Boy Baol na naka nga jàngatee marle bëreem lan la mu ne. Marley ndaanaan la ndaanaan la de. te xam naa ne li ma xam si moom day miime gëmul xeex yàgg-yàgg ci suuf la jëm. day day jël jéem a plaqué takk yooyu wala lool. te incha allah ñu ngi ciy liggéey incha allah xam naa ne combat bi dina neex daal ndax moom am na fu mu comme ni ma ko waxee léegi rek am na fu mu bëgg a dem man itam am naa fu ma bëgg dem. man yaakaar naa du ma ko may dara Marley. parce que daan moom mënu la koo bañ a def. waaw loolu yëpp ku ko ëpp yàlla na daan jour ba. Marley dama ko koy wax mu koy dégg Marley dama lay wax ne bu fekkee yaa doole yaa dàq xeex xam naa ne yow mosoo dóor kenn mosoo duma kenn Marley mosul duma kenn sa incha allah bés ba bëgg naa ko wan ardo lu muy jariñ bëgg naa ko koo wan jour ba. da ngeen faa da nga xalaat mar dina fa nekk yow ngeen di dem ardo ka ñëw. bëgg naa ñu dem ardo nag. est-ce que dina la ko xaare dina <laughs> ma ko may. waaw dama bëgg ñu cons combat bi. parce que ñoom man Bougar li ma seetlu ci Marley bëreem da koy baatar da koy résumer xam na fu mu koy commencé fi mu koy jeexale est que boo fa nekkee yow di lijjanti ardo est ce que du fekk moom mu def la lu mu la bëgg a def ba dem. xam nga lu tax muy lijjanti prix dëpp condition la amul condition la amul moo tax muy lijjanti ay prix arbitre soufflé bëre xam nga bëre trian laa ko mën a waxee quoi mais incha allah ñun ñu liggéey daal ànd ak mbokk. yow da ngaa gis Marley combat bu mu bëre nga gis ne ki amul condition. non est que nekkul ne day bëgg a libérer supporters yi rek tamit prix mu ñëw def def li mu ne parce que Marley ndaanaan la de. non day jeex ndaanaan la dama ko koy nangul ndax ku nekkul ndaanaan doo bëre man xam nga mais dama bëgg am lu ma wane si moom pour yéeg si kaw ndax sama morom yi amatul leen lu ma fay prouver booy yi ësoon si làmb ji yëpp dama leen a daan booy yi ësoon si làmb ji nu laa leen ñii ñoo ës ay Pape Mbaye ay Mame Balla ay trompeur ñoo ñëpp ma tegle leen daan leen comprendre ay kooñaa xam nga kon marle xaj na mook trompeur sax bëre nan trompeur daan ko yaakaar naa li nu boole daal mooy defet moonu nu boole mais xam naa ne xam naa ne bu ma daanoon ama neex du ko xool moom bu daanoon jéen kayre moom da day bëgga a bëreek man am na looy moytu ci moom dara xaw ma sax billaahi dara man du lool duma ko sax xelaat yàlla may na ma fit boo xam ne ku juddoo bawal yaroo ngor fii kon am na amul leneen looy xalaat si nit. promoteur bi leen tëgg loo koy wax. waaw bawal production moom ndeysaan dafa maa bëgg sama waay la moo bëgguma koo sonal si dara. billaahi sama waay la moom tëgg na bii mooy huitième combat bu ma tëgg yàlla def na benn defet laa si am. waaw benn defet laa si am. sa incha allah li muy ñaan ci jour bi yàlla na ko si xam nga nu ñëpp ñu gën koo jàppale bawol bawol yi jàppale ko gën koo jàppale sponsor yi waaw ñëpp daal dama xam ne bawol bawol yi dañuy jàppale ñeneen ñoo xam ne xam nga bokkuñu dara comprendre moom mi dimbali mbëri bawol yi nag di leen jàppale moom itam dañ ko war a jàppale bu baax a baax sponsor yi gën a ñëw si moom te xam ne moom jeune la te mën naa dem defi leneen xam nga bàyyi fi la mais nag maa ngi koy ñaanal daal jour bi lim si wute yëpp mu am ko si. Bawol am na jabar. non bëgg naa nag amaguma jabar de mais décembre bi daal bëgg na maa takk soxna. kon am nga gel bu ma la déggee. gel moom mbër bu ne la ëw gel day wax lu ko neex. Lamine mu ne ñaata gel nga am moog Bukar. benn <laughs> benn. ñeme nga tudd tur bi fii ne. waaw bu leen fa indi benn problème. du ko daa aay benn problème waaw maa ngi koy nuyu. wax ko. <laughs> non bàyyi maa ngi lay nuyu. am nga métier. waa am naa métier coffreur qualifié la waaw ko wax dëgg yàlla lam ji moo ma tax ma arrêté ko mais am naa fi diplôme sax bâtiment yu bëri ay almadi ngor bâtiment yu bëri man maa ko doon liggéey te xam nga commerçant laa teg si xam nga bu dul lam itam dañuy nekk si leneen dañuy business xam nga di dem di ñëw di def leneen ak leneen mais làmb ji nag dafa fiir na lay téye doo def lu bëri xam nga mooy loolu. Boucar laaj ko lu muy tàggoo. lan ngay tàggoo rek ak mobilisation foo toll ci mobilisation bi parce que moom moom moo xam naa ne ginnaaw raay beeg Pikine bi côté boobu noonu yëmbal benn baraag bi yëpp moom si ginnaawam la ñuy topp. li ma leen mën a xamal daal marle dama koy noyé jour ba incha allah hmm. euh, si supporter ndax xam nga lu Ngor ak Bawal xajuñu sax Iba Mar bëgguma jour ba ah ay supporter am de bu yeboo ñu fanaani stade waaw non duñ dugg ndax euh, bi may bëre ak Diène Kaïré Medina foofu la euh, dëkk mais jour ba est-ce que am na fa cinq car stade man la te booy bi da siy bëre Siteu bu Ngor moom itam xam nga booy Ngor yëpp dañuy mobiliser sa moom itam rawatina moom itam day mobiliser waaw moom moom ñoom ñooy booy yi ma xam ne euh, ñoom ñoo ma daa supporter xam nga di jël peinture di ko bind ci miir yi xam nga bu ne suba la ko papa ak waa njaan ak sama goro mbay xam nga mbay jon maa <laughs> waaw sama rak la tak léegi damay ñëw ci benn combat Lamine nag ma ciy cuq sànq ba tey Tafatine Ama Balde combat bi waxoon nañ ne ba parce que taxaw nañ ñi ne Tafa moo xaw a reculer wala yu mel ne kii noonu yéen en tant que ay frère Tafatine waaw combat bu taxawee man man booy bawal xam naa ne euh, li Tafatine di wax dinaa si tax rëpp ndax xam nga ay bawol bawol lan quoi. tax ci mbirum Ama Baldé. waaw ndax euh, Tapha Tine komba da si jàpp day jàpp si contact yi. waaw li may gën a. waa damay woote. waa booy bawol famille. ñoo ñëpp maa ngi leen woo na leen ñu gaaw. préparer combat bi ñëw na. comme nañ ko doon defee ñoom max. waa max ak ñoom daam Touba ñoom Siga. xam nga ñoo ñëpp euh, maa ngi leen di bu baax ak tonton Aliou. xam sëñ Mbacke Cheikh Mbacke xama nga xam nga ko. Cheikh Mbacke waaw Cheikh Mbacke ban Cheikh Mbacke. Cheikh Mbacke sa booy bawal dama ban rak. sëñ Mbacke. ah Mbacke Mbacke wax taximan. waaw kay moom itam day jàppale booy bawal bu baax ak euh, ñëpp daal petit Baye Fall ñëpp daal nañ ñëw ci combat bi ñu mobiliser waa Ngor nag maa ngi nuyuwaat. <laughs> waaw non dafa bëgg maa ngi leen di nuyuwaat ñoom ñëpp daal waa Ngor yëpp nañ mobiliser ñu gën noo jàppale. maire Ngor bi. ati euh, euh, ant euh, kii ati dañ koy woo mu ñëw jàppale ñu ñun xam lan lan bëgg bëgguñ soxlawuñu mu jox jox ñu xaalis de mais tout tànk yi génn waaw tout tànk yëpp ñu génn waaw maa leen gën a kontaan wax dëgg yàlla lu ñu def si yéen itam xeeb nañ ko waaw Boucar kontaan nga daamel ni de waaw moom yaa ngi melistiku rek waaw ndogu bi moom kar macha allah xanaa rek di jox gaay rendez-vous rek waaw aca tëjal ndeysaan kookoy Boucar Ndour borom Fatick lom da jaxaaw noonu la fa demee. mama aji bëgguma. waaw ma mama production petit non petit. waaw ginnaaw ma sant yaa jugee sant sama ñaar waa ji kontaan ci yéen comme teew bi ngeen teew jël si mbër ñu koy rafetlu ko waa waa Lutte TV ak waa Leewtoo marlom li ñu koy wax mu gaa ñëw gaa a daanu rek loolu rek lañ koy wax di sàkku ñaan ci waa bool gépp waa Diourbel waa Touba xam nga képp kuy mbàkke mbàkke ñu ngi la woo ci combat bi Salim Mbaye borom jinne ñu ngi mu jàppale sama doom lay kii sama xarit la na ko jàppale bu baax te képp ku may ñaanal bëgg naa nga ñaanal ko jàppale ko yàlla suñu borom may ko ndam incha allah na gaaw a ñëw gaaw a tëdd rek gaaw a ñibbi moo gën si moom daal su ko deful na leen lu ko ci fekk moo mooy lool ku leen jox lii saraxu Marley la Marley dafa neex a daan trop ah ñun de bu ngeen ci pare xanaa di ngeen ñu ko may la Lamine non waaw mais lii sarax bi la Marley suñu combat la leen ko jox <laughs> kii mooy jeewo doomu ndeyu Wally Seck ak Boy Bawal jeewo maa ngi lay bëggee maa ngi lay fay bu baax a di am euh, kon di la bu wér di am euh, contentement fekkee jotaay bi ndax ki kii woote daf ko jar xarit la frère la donc mu nekk nit ku baax nit ku humble maanaam bawol ñoddiwul dara may victoire parce que ku ko mérité la nag ah. franchement parler fulla baa ngi fi conviction baa ngi fi jom baa ngi fi doole baa ngi fi waaw li mu koy rafetlu rek parce que moom nekk na nit boo xam te ne wax dëgg fa yàlla naqarawul nekkal quoi te loo ko sëf tam da koy da koy sëfoo comprendre na te nit koo xam te am na yar am na respect ci doomu aadama xam nga te wax dëgg fa yàlla combat bi nu mu ko jëlee mosu ko jëlee combat xam nga may ñaan yàlla nag waa Ngor yëpp ñëw ak waa écurie bi am ñu mobiliser wu comme ni doon def jàppale ko yàlla may ko ndam quoi waaw franchement nit ku baax la tax mu nit ku mooy loolu daal yàlla nañu yàlla defal ndam daal si kàttanu yàlla moo ko Siteu xam nga di ñaan waa Ngor yëpp xam nga ñëpp mobiliser wu ñëw jour combat yàlla defaral ñu sutura daal ñu am ndam quoi. kenn du meer aji ak waa këram ñu koy nuyuwaat di ko ziar mais du tamit aji wala boog jeewoo noonu la fa demee woon taala Ndiaye la woon ci caméra bi ak Mamadou Lamine Seck wala Bukar mama aji boroom laa maare Lamine foo tollu del maare maare gën a wër kenn du yow am nga fi jàllaa bi